prédiction 20 ans d'existence 20 ans de carrière 20 ans de succès waaye nak mboki? ci bir 20 ans yooyu Assane Ndiaye daf ci and ak doomu Abdou Aziz Ale Ndiaye bii nak mo wara nek édition sargal Aziz Ndiaye l'homme d'affaires borom Jado Assane Ndiaye ni damay andi la crème de la lutte sénégalaise Xalé yi nga xamni ñu Dak dàkk dak mobiliser dak ambiance ci lamb Deglul ma grand combat bi mbay guy gi doomi bawol la jël dal di koy boole ak xalé bi nga xamanteni ni moy di Moussa Ndoye alpha numéro 2 dina fa jakarlo ak Bambilor drapeau Ngagne Diouf maire de Bambilor Tapha Leer numéro 2 daanaan bi champion bi moo war a jàkkaarloo ak doomu Jolof xale bi mën a bëre lool Modou Anta numéro 2 doomu Thiès war a jàkkaarloo ak Sayara Kewel numéro 2 dina fa jàkkaarloo ak Boy Niang numéro 2 drapeau Naar Ñaan borom Sandaga yeneen combat yi ca gannaaw nag moo gën a neex moo gën a doy waar ndax Assane ay ndaanaan rek la boole Assane Ndiaye ak waa Bawol production dese lu ñu dara amateur Assane ni may àndal ci bés bi bokk na ci boisson original boisson Cobra ETDR établissement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 di nuyu presse bi ñuy bi fi teew yëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant tey ñu ñoo leen woolu woon fii ci Cheikh Atia di nuyu borom Cheikh Atia di Ilimane Lam nuyu borom Cheikh Atia di Ilimane Lam bi ñu abal fii tey ba ñu mën fi def conférence di nuyu nag ñi teew ci salle bi ñëpp di jiital di nuyoo bi suma papa Basirou Babou di ko jox wàcc waaye bu baax a baax ak ñi mu àndal ñëpp di ay ménager ku ci mel ni Max Mbergane ñu ngi koy nuyu bu baax vraiment teel naa ñu trop di nuyu ak bu baaxum bu baax a baax a baax ak Papa Diagne Seras ak sunu grand Ndiouga ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu bëgg Fallou di nuyu Mbaye Diallo di nuyu nag suma mbokk promoteur yi fi teew

di nuyu Baba Gaye 2 bu baax a baax ak Gris Bordeaux di nuyu Raay Ba tey waxtaan bi li ko waraloon lu simple la ministre bi dafa ñu woon semaine passée pour waxtaan di ko rafetlu nag ci waxtaan boobu parce que làmb loolu c'est la première fois mu am fii benn ministre de la République ñëw woo waa làmb yëpp tànn ci ay kuréel bu nekk nga tànn leen tànn ci presse bi kenn tànn ci promoteurs yi 5. tànn ci ménagères yi tànn waa CNG ñëw leen ñu waxtaan ngeen tànn kenn ngeen bëgg mu jiitale loolu dañ koy lu bu baax a baax a baax di wax ne ay nit ñoo war a tànn ñan ñoo leen war a jiite bi mu ñu ko waxee nag bi ñu delloo suñuy biir kër ñu toog xalaataan waxtaanaan bu baax a baax ñenn ci producteurs yi nag gis nañu def nañ conférence de presse ñuy rafetlu seen conférence de presse bu baax a baax parce que dama jàpp ni tey promoteur su fekkee da nga ñun ñu tamit ay promoteur lañu parce que am nañu licence ñu ngi organiser Sénégal yëpp xam nañ ko jàpp naa ne waroon na baax ñu yëkkati seen téléphone woo ñu téléphone yëgal ñu ne ñu diw de dañ leen woowoon pour ngeen ñëw ci conférence de presse bi ba xam lan la ñuy xaar suñu avis mais kenn woowu ñu kenn defuñu dara jàpp télé bi ngay seetaan rek dégg ñu woote nañu te booy wax waxoon surtout ci tur promoteur yi ngay wax ne ñun promoteur yëpp kon ñun ay lan la ñuy woowee suñu bopp kon. ay nit toog ci benn rëkku woote seen plateau ne ñun promoteurs yi ñun ménagères yi ñun nangam te ñëpp dajewuñu loolu day créer problème su ëllëgee bu ñuy woote ci turu promoteurs yi dañu war a woo promoteurs yëpp soo mënta woo ñëpp nga dem sa rëkk nga def sa conférence presse woote sa turu bopp rek ne man waa Alborax nangam ak nangam mais bul wax promoteurs yëpp parce que soo ba léegi nit ñu ngi woo na yow nii nga àndal diw nga àndal ñu ko ñu ne diw moo nii ñun promoteurs yi. loolu bokk na ci lu waral jotaay moo tax nag ñenn ci promoteur yi ñu ñuy toog sama wet ku ci nekk di jël kàddu liñ ci war a wax nga wax man en personne li ma concerné man Baye Ndiaye maa ngi ànd Ngom maa ngi ànd ak Malick Ngom bu dee kon élection la suba moom lay voté ku mu mën ministre bi suñu waxoon suba ñu war a delluwaat xaw ma dinaa dem xaw ma keneen ay dem sama tur ca kaw man Malick Ngom lay voté beneen bi ci topp kuréel yi dañoo bari tey gis nañ fi ay association promoteurs yu mat 4 wala 3 am na ñoo xam ne bokkuñu ci benn association man mii di wax ak bokk bokkuma ci benn association kenn jiitewu ma man sama association bopp laa yor man kese maa ànd ñii toog tamit ku ci jël kàddu nga waxal sa bopp. man ànduma ak kenn ci benn promoteur maa ngi yor sama licence di organiser am sumay xarit ay association yooyu man ñoom la concerné ku nekk si li ngeen nag ñu ngi la koy nangu di la ko waaye en tout cas daal Albourakh bokkul ci benn association te waa Albourakh Malick Ngom la ñu àndal jërëjëf. Production 20 ans d'existence 20 ans de carrière 20 ans de succès waaye nak mbokki ci bir 20 ans yoy. Assane Ndiaye def ci and ak doomu Aziz Aly Ndiaye bii nag moo war a nekk troisième édition sargal Aziz Ndiaye l'homme d'affaires borom jado Assane Ndiaye ni damay andi la crème de la lutte sénégalaise xale yi nga xam ne ñoo dakk bëre dakk mobiliser dakk ambiance ci lamb ji déglul ma grand combat bi mbay guy gi doomi bawol la jël daal di koy boole ak xale bi nga xamante ne nii mooy ngémboo yaraax di Moussa Ndoye alpha numéro 2 dina fa jàkkaarloo ak caatu Bambilor drapeau Ngagne Diop maire de Bambilor dafa leer numéro 2 daanaan bi champion bi moo war a jàkkaarloo ak doomu Jolof Fanta numéro 2 doomu Thiès war a jàkkaarloo ak Sayara Kewel numéro 2 dina fa jàkkaarloo ak Boy Niang numéro 2 drapeau naar ñaan borom Sandaga yeneen combat yi ca gannaaw nag moo gën a neex moo gën a doy waar ndax Assane ay ndaanaan rek la boole Assane Ndiaye ak waa Bawol production na dese lu ñu dara amateur Assane ni sponsor yi may àndal ci bés bi bokk na ci boisson original boisson Cobra ETDR établissement Touba Darou Rahman huile Jador Distingo Tibet mbokk yi rendez-vous baa ngi noonu le novembre ci arène nationale ñu ànd ci ak Bawol production ngeen Assane Ndiaye kenn du leen ndaanaan